بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى عليكم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناؤكم ذلكم قولكم بأقواهكم والله يقول الحق ويهدي السبيل ادعوهم لآبائهم اقسم عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما بارك الله فيكم القرآن mooy téere boo xam ne loo loo nitee di nitee di loo ñaaw ñaaw ay jikko loo ñàkk ñàkk yeewu loo ñàkk ñàkk xam sunu boroom boo ko jàngee rek daf lay suppi def la geneen nit ndax inna hada al qurana yahdi lillati hiya mooy téere boo xam ni boo koy jàng di ko tettantal dina la joxañ sunu boroom yàlla ba nga xam ko ci ay melokaanam ak ay jëfam ak ay man-manam ak ay sañ ak ay kaweem ak sori mu sori yépp sikk ak li nga xam wu tëliwu ko ci dara ak nguuram ni mu yaaxee kàttanam ni mu matalee xam-xamam ni mu matee yooyu yépp inna hada alqurana yahdi lillati hiya aqwam alquran boo koy jàng mboolem nettali yi fi ba sa jaar di ay nettali yu baax di anbiyaullahi ñoom ñépp ak nit ñu baax ñu fa mësa jaar ci kaw suuf ci xéeti lu ñuy roy pour bëgg baax rek boo jàngee alquran nga ko cay fekk ndax inna hada alquran yahdi lillati hiya ci wàllu jikko loo ñaaw ñaaw ay jikko loo doye di doye di alquran dana la gindi jëmele ci ay jikko yu rafet ci mën a baale ci mën a jéggale ci mën a jëllale ah ci gëm sey bëc ci ay bi sa mbokkum julit ak dégg mel ni déggoo ak xam mel ni xamoo ak yëg mel ni yëgoo ñu tooñ la nga baale nga mer wana sa mer wan la mbooleen jikko yu bon ya ngir nga man koo moytandiku ndax inna hada alqouran yahdi lilati hiya aqwam